Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokkam mi ma ngi ñaan yalla subhanahu wa taala di yëkëti ci sama loxo di ñaan yalla vidéo bi bu ñëwé ci sa téléphone nga déglu ko ba mu yegg and ak limi gatt lepp nga déglu ko ba mu yegg yonne ko ci yeneen groupe ya wala ci yeneen privé ya yalla na yalla boole ma man ak yow ak ñooñee nga ko ci aljana yowmal qiyam yal na yalla dogal nit ñi dégg safara ci aduna bu ndajeek yalla ñu continue di dégg nonu safara ndax duñ fa dugg yal nañu ko yalla may yag na la wax ni whatsapp bi ku ci wul lu bax tasare ci safanu lu tasare mo mën mënta ñak kon nan tasare lu bax insha allah taala yal nañu yalla yeggaleel suñuy mébét mbokk mi deglu bu bax barki démb ci talata ji démb alarba mo fi dox ak tay alkhamis dafa am benn mbokk ci mbokk yu jigéen yi yónnee ma vocal ci sama téléphone di laaj ab laaj lan la doon laaj mbokk mi nee na ma nan laay def ba duma sonn ci àdduna nan laay def ba sama àdduna sama dundu àdduna yépp dal di nekk noflaay maanaam lu neex bi mu ma ko waxee li ma ko daal di tegal ci wax jooju moo di ni alxemes incha allahu taala dinaa la tontu tontoom baa ngi nii incha allah dina si jot waaye mbokk jullit yi dinañ si jot pour mu nekk njariñ nan la ñuy def ba duñ sonn ci àdduna nan la def ba sonn ci àdduna allahu akbar mbokkam jullit tontu bi mooy sonn ci àdduna mënta ñàkk. dinaa dem ci alquran ma wan la ni la sonn ci àdduna alquran daa wax ni sonn ci àdduna mënt ñàkk yonent bi alayhi salaatu ci sunnaam dañ ciy gis ni sonn ci àdduna mënta ñàkk ci sunu dund ñun buñ xoolee sonn ci àdduna mënt ñàkk lii waral ni àdduna ab coona la ab coona di nekk ab coona di nekk ab coona nekk ab coona ba keraa ñu dugg biir suuf bokk na ci nit ki buy judd li muy njëkk def mooy jooy allahu akbar liir bi sax bu juddoo te jooyul ñu domp ko ñu domp leen ko ay sama doom ji mbaam mu ngi dund ay sama doom ji dégguma mu jooy di pour mu jooy keroog ba nga juddoo jooy ci ngay xam ni kon doo noppalu da ngay juddu di jooy génn àdduna say mbokk di jooy diggante bi kërti kërti moo fi nekk allahu akbar waladatka yabna aadama ummuka baakiya والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا الله أكبر waa أنا سيايد لا جر ngay joy nit ñi wër la di ree waay waay waay liggéeyal ba bis booy génn àdduna bokk ngay ree nit ña doon ree barki dem ba di joy ñoom ndax nit ñi moom boo demee da ngay jooy waa yow ngay ñëw di jooy demal kon fexeel booy dem nga ree li may wax ci déglul yàlla li mu wax يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي الله أكبر يا لنينا يو دومو آدم ياني كرتي كرتي دي كرتي كرتي دي كرتي كرتي وتدي سبرام دي كرتي كرتي ريك وتدي كا واي نك دينكو مسا دينكو مسا دجك مو يا لنينا لقد خلقنا الإنسان في كبد دومو آدم دابا كو كرتي تي كرتي كرتي موي داي سون بوكو جيلي داني سون mënta ñàkk ñu sonn benn kay nga sonn ci lu baax wala nga sonn ci lu baaxul moo tax bi may commencé vidéo bi maa ngi naan ko yónneewul lu baax yónnee lu baaxul kon dañ yónnee lu baax ndax nag mbokk jullit nag àllarbay Moussa ak samedi Firawna ñoo fi nekk boo demul ci àllarbay Moussa rek dem samedi Firawna kon nañ dem àllarbay Moussa mbokk jullit yi yàlla subhaanahu wa taala ba mu buddee sunu maam aadama dugal ko biir ajjana ak soxnaam sa xawwa yàlla dafa jàkkaarloo aadama ni ko aadama إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى نيكا إيه آدم إبليس مين غي كسني شيطان مين غي كسني سب نون لا سنون بسخنا لا بوم لين جنة بير أجنة نخ بولين جنة بير أجنة دينا صن فوفو فتشقى دو في تك تخيري واي صن لا في تك كون ديكي تكون فوفو يالا داني في وخني لدول أجنة أبتونا الله أكبر الله اكبر لودول لا موتا يونت بي عليه الصلاه والسلام كيروك برو غاي ген مو نيك تي سكرات فاطمه تيم دي جوي يونت الله السلام نان لاكا واخ فاطمه ني وا ابتا سما بابا لي كدال مدينه تاي نان لاكا يونت الله السلام واخ يا فاطمه لا كرب على ابيك بعد اليوم فاطمه سا بابا لي كدون دال تي لو متي بي جيبي مكو جولي تي بي ادونا لا يم بو فكنتي نيدو اجنا نان لغي بروم اجنا بو كتي الله اكبر بوكنا تي لي غن nit ki ko seetal nag adduna bi seetal adduna bi kan moo noppalu wallahi àdduna bi bu dee am na ko noppalu kenn la mooy ki nga xam ni xolam bi yàlla da koo fees dell xanaa doo ma ni njiitu réew noppalu xanaa doo ma wax xanaa doo ma ni njiitum réew moo neex ci adduna tey jii la alxemes tey ci suba maa ngi déglu ci information yi ñu ni président Macky la tey la war a dem Kër Massar pour ma wan la ni la la nga yaakaar ni moo neex loola neexul ñu ni président Macky Sall tey la war a dem Kër Massar pour seeti nit ñi nga xam ni dañoo loru ci ndoxi taw yi ñu ngi wax ni président Macky Sall démb am na ñu ko jiitu woon Kër ma saar pour xool fi président war a jaar ak fi mu war a dem xool ba xam ndax amul ay risque ndax amul ndax amul ndax amul ñeneen jiitu ko fa essayé ba xam président war naa mën a ñëw fii wala wërta mën a ñëw fii allahu akbar ndax lii neex na bokk ci président bu doon ñëw tey Kër Massar wóoruma ndax ñëw naam déet ndax dégluwaataguma journal ca suba ak léegi président dina am ñu ko jiitu am ñu taxaw ci wetam am ñu taxaw ci wetam côté bi am ñu nekk ci ginnaawam di ko xool daanaka mënatul a defati mbiru secret lu tax ndax daa yor loo xam ni ñëpp nga ca teg bët lam daan def barki démb dem nga xam ne moom rek moo koy yëg mënatu kaa defati tey moom rek di ko yëg fu mu jëm rek ndeysaan mbooloo maa nga topp ak moom fu mu jëm lu mu gàtt gàtt gàtt boo moytuwul lu ma téeméeri nit yoo xam ci moom la ñuy xëy bis boobu ndax li neexna bokk na ci kemtani aduna moy nit ki lu mu amul lolay neex ci mom waye lim am du neex ci mom xolal bu baax nag mbokk jullit li ma len di wax ni xol len ko bu baax ki doon ñaan yàlla ay doom yàlla jox kay doom bu ko yàlla joxee doom doom yi dootul neexati ci mom mais li neex ci mom moy lan alal la senti séenti amu ko loolaay neex ci mom borom alal ji alal neexul ci mom lan mo neex ci mom mu ngay xol leneen jàmmi keneen wala muy xol keneen dalgum dal wala muy xol keneen doom yu am doomu aadama lu mu am dootul neex ci moom mais lim amul mooy neex ci moom loola lay séentu mbokk jullit yi nan leen jaamu yàlla li ci des ñu bàyyee ko suñu borom adduna si ab noppalu amu fi déedéet adduna si ab noppalu amu fi fan noppalu ba am mooy fan mooy àjjana allahu akbar xutuufuha daaniya yàlla nee na witta ma ngay witta sax pour lekk sax du du du naqari da ngay tëdd ci sa kaw ab lal ndeysaan pom gi garabu pom gi dal di car bi daa car bi wàcc naa wàcce wàcce ba ñëw ba tiim la nga dal di dagg benn pom ndànk dal di lekk qutuufuhaa daaniya wa laxmi tay wa laxmi tayri mimmaa yashtahun yàlla nee na wa lahum fiihaa maa tashtahi anfusukum wa lakum fiihaa maa tashtahi anfusukum àjjana lu sa bakken xalaat lu neex ci yow moo fa am wa lakum fiihaa maa taddaun loo ñaan mu ñëw foofu la wax ñu nekk mbokk jullit yi waaye fii ci àdduna mbokk jullit nañ leen préparé àllaxira yal nañu yàlla sàmm يلا أرنيو يلا فيصل سنقول أبقك مم يلا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا